asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk ñëwaat nga ci sa émission xam sa diine maam làmb njaay nga ci àndal tey ma jàngale nan la ñuy taayaa jullit dafa war a xam diineem jullit danga ngaa war a jàng sa diine ndax ñu bari da nga leen di mbugal seen bàmmeel te dara warulu ko lu dut dañoo jàngul woon seen diine bu leen malaaka yi laajee nag ñu naan laa ñu ne laa addari ñun li ngeen may laaj yéen malaaka yi li ngeen may laaj xaw ma dara ñu ne ko nag laa darayta wala talayta jàngoo woon ci àdduna te tamit daawoo laaj ñi nga xam ne ñoo jàngoon tey ma jàngal nan la ñuy taayaa taaya da ngay wax ne attahiyaatu lillahi azaakiyaatu lillahi attayibaatu assalawaatu lillahi assalaamu alayka ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu assalaamu alayna wa ala ibadallahi assaalihiina ashhadu an laa ilaha illa allah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا abduhu wa rasuluhu foofu la taaya yem taaya yaa ngi koy def sa ñaari rakk booy julli suba war nga faa taaya bu dee tisbaar ñeenti rakka la quatre rakka deuxième rakka bi boo toogee war ngaa taaya quatrième rakka ba boo toogee war nga faa wax bu dee san kazalika ñaareelu rakka ba danga ko fay wax ñeenteelu rakk ba da nga ko fay wax bu dee timis ñaareelu rakk bi da ko fiy wax ñetteelu rakk bi da ko fiy wax muy ñaari taaya bu dee gee ñaareelu rakk ba boo toogee da ko fay wax ñeenteelu rakk ba da ko fiy wax kon loolu mooy taaya kon yow jullit bii di ma déglu fexeel ba xam sa diine ndax yàlla boo ko xamul day doo ko mën a jaamu su ko defee nga partagé vidéo bi parce que mbokk jullit yëpp man cee jariñu seeg muy law rek sa tuyaaba di gën di yokk boo ko partagé li nga bëgg yaa ko xam yan na la ko yàlla dafa barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la borom bu wooyoon jox ko julli ngir aw xeetam maam Lamp Njaay la